ci xasida Sëriñ Tuubaa ñu baaxoo di ko ànd ak yéen bitim réew ñoo ngi leen di boole na yow bi ñu yàlla boole te mu doy na yow walis bépp na yow ñu tibbee ko sunu xol jëmee ko seen jëmuy tedd yi te ma asalaamaaleykum wa rahmatullah ñii ndiwaat geneen xasida di ko jàngat ak yéen képp sunu kattan ak sunu déggin ñii xasida Sëriñ Tuubaa gi tudd ahasanil baaxi min asaytaani xen ndama mariyewa fil awtaani xasida goo xam ne sëñ banko taalif di ci nettali lenn ci barab yi nga xam ne moom la jaar di ko dalee jéewal gim dajowoon ak noon yi ñi di ko jël si jaaree ko ndar ba kerek mu yegg maayomba ba kerek mu yegg galwaa léegi barab yooyee nag moom lay nettali ak ñun maanaam xéewal yu ko fu sunu borom tabaraka wa taala defal nga xam ne booy xool sëñ Tuubaa mooy ko kenn xamul mboolem lañ ko doon def ci géej gi ci xeetu naqar méttit lépp da ko wenci da ko wettee ak sant yàlla lañ ko jànge woon ci xësi rek li yeen xaada rek katabtu wa inni saakirun lastu sastika wa anni maha ma sa ani ishanna nee ne bind naa ne man sëñ Tuubaa ne santaakoon yàlla laa waaye nag du ma jàmbat mukk mukk mukk ndax dañoo wax ne koo xam ne santo yàlla yaa ngi jàmbat te sëñ Tuubaa def ne wala astaki lil xalq min faqadi an omi du ma jàngat du ma jàmbat mukk mbindeef ngir loon ñàkk ay xéewal moom lépp léppam da ko jëloon wëkkil ci yàlla mostu yaakaar mbindeef mostu sukkandiku ci mbindeef mostu sukkandiku daray daray mbindeef di séentu ci moom dara lépp rek lu mu soxla rek yàlla rek ci lu koy yaakaar moo tax yàlla di ko defal lépp lu mu bëgg rek yàlla defal ko ko kon nag booy xool loolu day dugg ci la muy wax ne en tayte ni malxal bu an fa kulama mada mina duri maxawtu yàlla jox na ma loo xam ne moo loo lépp loo xam ne xeeti lor la yama daan tubaab yi daan teg yama daan noon yi daan teg yàlla moo ma jox loo xam ne loolu moo maanaam lama ma yàlla jox tax ma fàttaloo loolu yëpp lor yooyu yëpp ñi ma daan teg wal tux ni nii bi sukkuri an tasakuri maa xat ma daawalee naw yu fikri yow yàlla maa ngi li ñaan nga doy loo ma ma di la sant fu ma toll walis may ko ay natt yooyu ma daan teg ay lor wax na ko ci tey sur bi nga xam ne jaaroon nañ ca kon mu mel ni xasida cant la mooy barab yi mu jaar li ko fa yàlla defal moom lay cant waaye itam doon xasida koo xam ne xasida ak la sëriñ bi tàmbalee ko fii mu mu tëgg ko ci baxru rajas niñ koy yàgg a jàngalee ci xalil ibnu ahmad al faraidu mu nekk juróom-ñaareelu baxru moom baxru rajas bu ko defee xasida gi tàmbalee fii rabbi a'uusu bika min amasaati sayaatiina wa a'uusu bika rabbi an yaxduruun mu ne rabbi yow sunu borom aonsu maa ngi muslu bi ko ci sa kattan bi na amasaati sayaatini ci jax-jaxe saytaane ya wa aonsu danaa muslu bi ko ci sa kattan rabbi yow sunu borom an yaxduruna walif ñi teewee samay mbir gannaaw bi mu tàmbalee muslu ci yàlla ci jax-jaxe saytaane nga xam ne saytaane lépp looy def rek mën na laa jax-jaxa yàqal la na ko sëñ Tuubaa waxee ca masaaliku nee na nit ki feeg ruuxum teqalikowul ak jëmmam bu mu wax ne mucc na ci seytaane mukk kooku sëñ Tuubaa rek lañ ko déggal gum koo xam ne mi ngi dund ba noppi na faaraxtu iblis wa jamee mafasid te seytaane a am kattan ndax yàlla da ko tëbb kattan loo xam ne kenn xamunum toll moom rek moo moom rek la ko yàlla jagleel képp koo xam ne soo mu nga ci yoon yàlla seytaane dana la dagaan di la dogaale ngir bëgg la yàqal waaye moom nag léppam suñu borom da ko muccal ci seytaane moo tax gis nga da yi nga xam ne da koo tëggee aousu billahi min seytaan rajim rek jóor la fu ne loolu yëpp bëgg taalibe mi mucc mu ne maa ngi lay ñaan nag yow yàlla ci sa kattan nga musal ma ci seytaane ak seenu jax-jaxe ya waaye nanga musal ci sa kattan wala si ñuy teewee samay mbir ndax nit ki de ba demee bay bëgg a faatu seytaane mën na ko yàqal am na ci ñoo xam ne bu ñu demee bay bëgg a faatu donte sax ay julli ñu ay jullit lañu woon ñu ngi doon jaamu yàlla bu ñu demee bay bëgg a faatu ba yegg ci barab boobu nga xam ne dañooy mar loo leen mën a indi rek lu dul ndox rek soxluñ ko saytaane nag wax nañ ni bu ñu yeggee ci barab boobu day amee ndoxam mu neex moo xam ne day neex ba mel ni lem bu ko defee nag yow bu fekkee da nga weddi yàlla suñ borom dafa lu la tawféex la ngay bëgg rek mooy jox ta ndox ma fexe ko ndax la ngay jàpp rek mooy boo ndax maru rek ngay gis ngir sa mar fu mu toll waaye bu la yàlla defalee tawféex nag yàlla moo lay ilhamal boppam mboolem lu la saytaane bëgg jax-jaxal lu mu la bëgg def rek suñu borom mucc loolu ci kon yàlla nañ ci yàlla musal xasida gi nag day maye loolu mooy képp ko koy jàng suñu borom dalay musal ci saytaane nga xam ne moom it day nettali rek yàlla nu mu ko musalee ci saytaane mboolem ci jaarwaayam yi moom lay nettali ci biir mu ne awansu billahi mina seytaani rajim mu ne awansu maa ngi muslu billahi ci kàttanu yàlla mina seytaan ci seytaane rajim kaddu guñ dàq mu wala sérmande yàlla nga xam ne léegi nag awansu billahi mina seytaan rajim moom la tënkee jëmmi xasida gi di wane maanaam nu ko sunu borom musalee ci seytaan yi waaye kiy jàngi xasida gi itam ni koy sunu borom di musalee ci seytaane mu ne maa ngi muslu ci kàttanu yàlla ci seytaane mi nga xam ne dañ koo dàqee mu wala sérmande yàlla nga xam ne seytaane fu yërmande yàlla nekk du fa nekk ndax minha fa innaka rajimun lañ ko wax wa inna alayka laxnatay ila yawmi diin dañ koo rëbb rëbb mooy dañ koo rëbb ci mboolam mboolem yërmande yàlla maanaam fépp foo xam ne yërmande yàlla mu ngi fa rek seytaane du fa nekk ba keroog bis pénc seytaane nag ko misaalee rek booy muslu da ngay muslu ci yàlla mi seytaane yàlla musal la ci seytaane mu ngi mel ni ab xaj bu fekkee tey dalaa topp boo séenee borom daw dem ca xaj daw dem ca borom xaj ba borom mën na laa jàppale xet li la waaye bu fekkee da ngay daw rek xaj bi mën na laa jot alag la kon nag da ngay muslu ci yàlla mi moom seytaane ndax seytaane bindeef la comme yow bu ko defee sunu borom musal la ca noonu rek la demee gannaaw bi mu tàmbalee rabbi a'uusu bika min hamazaati sayaatiini wa a'uusu bika rabbi an yaxduruun na a'uusu billahi min asaytaani rajim daa di ne aasani baaqi min asaytaani inda mamariya wa fil awtaani muy mustafxilun mustafxilun mustafxilun nga xam ne di fa tàmbali rek di sant boromam daa di ne aasani musal na ma albaaqi yàlla mi nga xam ne mooy ki fi sax ba fawta du fi jot musal na ma min asaytaani ci saytaane nga xam ne kon xasida gi ni mu ko tënkee moo tax muy wane ne moom it saytaane sunu borom da ko musal ci léppam naaguloo ko ci léppam mënu ko yàqal moo tax mu yàlla mi tudd albaqi moom mi fiy des te du fi mos a jóg nga xam ne moo fi sax ba faw yàlla moomee mën a leen axaasanii musal na ma mina saytaani ca sayatini xenda ma mariya fa sama jaaruwaay yi wafil awtaani ak biir samay dëkk yi nga xam ne maa ko sancel sama bopp yépp buñ na ma mariya mooy doon jaaruwaay moo xam nag jaaruwaay jaaruwaayu saahir la wala baatin max dama ko waxoon rek ca xasida ma fàttiwul bisiri wàcc xal ma mari saahiran wa baatinan lii tayiban xabdan sukuran xaatina kon dafa am jaarwaay yoo xam ne saahir lañ am yoo xam ne baatin ñin nag yuñ xam mooy saahir yi ñu ne jaar na Ndar jaar na Ndakaaru jaar na Conakry ak yu demee noonu jaar na Karambasa ak yu demee noonu ba keroog muy yegg nga xam ne mooy Limbaroli ba keroog muy yegg euh, Galwa nga xam ne ñun jaarwaay yooyu lañ xam waaye dafa am jaar waaye yoo xam ne yu saahir la yu baatin yooyu fañ ko doon dugal barab yu xëj yoo barab yu xaj yooyu Sëñ Tuubaa nekk luut ko yooyu nag jaar baatin la lu demee ni kafaytani xay xaba maa ta jax-jaxaa la yàlli fa ba jaxaa kon yooyu ay jaar yoo xam ne jaar waayu baatin waaye sëñ bi moom yéñ ko ko doon def ci xëyitu natt yu métti yëpp da koo remplacer sante ko sunu borom maanaam sant boromam la wéttee loolu yëpp nga xam ne nekk luut ci lenn waaye da koo sante sunu borom moo tax mu nag yàlla miy aji def ji moomu musal ci seytaane sama jaarwaay ak biir ak samay biir dëkk yëpp yàlla musal na ma ci seytaane mu ne xibaadatik tadaxtu bismillahi wax wa kaxaaniya sawil malaahi mu ne ibtadaxtu maa ngi tàmbale xibaadati sama jaamu yàlla bismillahi ci turu yàlla waxu moom yàlla kafaaniya fegal na ma sawil malaahi ñi nga xam ne ñooy borom ak caaxaan yi nee maa ngi tàmbale sama jaamu yàlla ci turu ci turu yàlla sëñ bi ku fonkoon turu yàlla rawatina bi mu génnee mbàkke baar yi war a jëm fii nga xam ne mooy jéewal li ëppoon ci yoonam daanaka bisimillahi rahmaani rahim ci la bokkoon bokkoon na ca bisimillahi rahmaani rahim moom la doon wax ba yàlla musal ko moo tax ma ne maa ngi tàmbale sama jaamu yàlla ci turu yàlla yàlla mi nga xam ne mooy ki ma fegal mboolem ñi nga xam ne ay caaxaankat lañ la mu ko waxoon rek ca xasiid ak ay te mooy lii saxaarat xen da ma malaahi yàlla mi ma notal ñi nga xam ne ñooy boroom caaxaan ah buñ ko waxee rek mooy ñi nga xam ne dañoo doon ay mag ñu ne léng war a jaamu yàlla xam luy jaamu yàlla waaye ñu bañ ko topp caaxaan ki rek ñooñu mooy ay malaay nee na ñooñee nag yàlla fegal na ma leen gannaaw buñu béy ko foofu mu ne wajaxtu kulal amdi wa sukuuri lil maliki rahmaani wa sakuuri mu ne wajaxtu jëmale naa kulal amdi bépp la mañ wa sukkur ak bépp cantuk cër lil maaliki jëmale naa ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji moom ji arrahmaani tey aji xéewalaa kon bépp mi def ci àdduna waaye wa sukkur tey cantaa kon waaye nag tayeyoo ak cant mu ne jël naa sama gépp ak cantuk làmmañ ak sama gépp ak cantuk cër te xam ne buñ ne alhamdu li cëpp mooy cantuk làmmañ waaye léeg-léeg dana ànd kook jëf waaye li cëpp mooy cantuk làmmañ moom waaye buñ ne sukkur moom kook effort la lu sunu borom waxoon rek ne ihmalu ala daawud sukuran wa qalilun min ibadi sakur kon foofu cantu effort la ndax dafa bokk ci yàlla li muy njëkk laaj nit ki doomu aadama ba léegi yomal xame mooy ana wér ga ma joxoon kan nga ci doon jaamu kon moo tax dund dafa seer moo tax yàlla dund gi lay njakk laaj moo tax mu ne su ma la tusaluna yow ma sin ànd na xaami moo tax Sëñ Tuubaa ne jël naa sama géppuk cantu làmmañ ak sama cantu cër jooyoon ko ci kii nga xam ne mooy yàlla mi tudd mooy aji moom ji waaye nag mooy kii xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna amul nit ak jinne amul ku koy weddi ak ku koy mooy yépp ci waaye nag mooy ki tudd sa koor mooy santaakoon bi waaye nag te yeyoo ak sant yàlla moome ma jël loolu sama lépp jox ko loolu jox ko ko moom mi tudd almalik arrahmaani assakuur nee na yàlla moomee ma ne leen sakkaa rendi na arrahimu yàlla muy xéewalaa koon yàlla muy xéewalaa koon ñi nga xam ne ñoo ko doon jaamu ci kaw suuf nga xam ne ñu ngi ci jublu xéewal yi nga xam ne mooy xéewal yu sew yi nga xam ne yàlla sunu borom ñi nga xam ne dañ ko doon jaamu fii ci kaw suuf bu yomal xel mu leen di dugal ci arahim moo tax rahim xajut fii ci adu ci aduna alaaxar rek la xaj waaye rahmaani nii itam aduna rek la waaye xajut yomal xel moo tax mu ne sakkaa ren dina arahimu yàlla mi nga xam ne mooy aji yërëm ñi nga xam ne ñoo ko doon jaamu fii ci kaw suuf bi nëb bii ci darjaay bi lan la ren di mu ne rëjii nii sama saytaane maanaam amatuma saytaane amatuma ku may song amatuma ku may yàqal amatuma ku may jax-jaxal amu ku amatuma koo xam ne fu ma dënmalee lu baax mu way katoon déedéet na ma ko waxoon rek faaraqtu iblis wa jibal mafaasidi na yàlla dafa ray sama saytaane da koo rendi waaw nga xam ne léegi dee na amatuma ko yàlla da koo naaguloo ci man ba nga xam ne du man dara ci man du am kattan ci man moo tax mu ne fakkaa rendi na rahimu yàlla muy aji yërëm ña ko doon jaamu bu yomal xiyamee bi ne bii ci daraja yonent bi ci la rendee rëjim yi sama saytaane mooy ku ñu dàq moo di si yërmande yàlla ki kooku mooy rëjim mu ne wa aali moo ki waa këram wa sax bi ak ay saabaam yi nga xam ne dañoo leer ànnu juumi ba mel ni ay biddiw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne sama saxaab yi de dañoo leer ba mel ni ay biddiw ku ngeen ci roy rek ku ngeen ci jàpp rek ku ngeen ci xënc rek ku ngeen topp rek dangeen ngeen ngeen gindeeku léegi nag mu njëkk indi nag étape bi nga xam ne moom la njëkk a jaar te mu njëkk fay dajeeg ñi nga xam ne ñooy noon yi muy lakk leer ak ñi nga xam ne ñoom la àndutoon ngir ñi war a jël ci sëriñ bi yóbbu ko ndar ngir ñi àtte ko léegi barab boobee nga xam ne moom lañ wax ne moom la daje woon ak ñoom barab boobee moom sëñ Tuubaa dafa wax ne maanaam moom la teqalikoo ak ñoom <laughs> barab boobu nee moom la muccee ak ñoom moom la muccee ci seytaane waaye muccee ci ñoom ñu ko jël ci woon itam nga xam ne dafa gën ci yàlla waaye nag foofu ñu leer la waa ñu leerlu ñu leerlu foofu bala ñuy jàll maanaam jubluñu nettali xisa yi xew ci yoon yëpp déedéet kooku mënuñ koy nettali waaye bu yàlla defee ba ñu yegg ci xasida ay saminillahu xëy na danañ ci nettali kem suñu kattan waaye comme xasida gi sëñ bi day nettali di sant rek barab yi nga xam ne dafa jaar léegi kon barab buñ ñu yegg rek nga xam ne tudd na fa lu demee nii mu ne mallaka ni yàlla moom la noo fa nangam wala jox noo fa nangam danañ leeral la fa yàlla jox wala la fa yàlla moom loo comme ni nga xamee ne ñiy bind ci taarix nettali istiwaaru sëriñ bi nga xam ne nu ñu ko indee loolu yëpp dañ ko indi incha moo tax mu ne billahi gëñ naa ci yàlla ne faaraxtu teqalikoog naag nasaara nasaraan si nga xam ne dañoo bayeekoon ndax di ma jël si teqalikoog naag ñoom jéewali jiwal kon bu ko neexoon dëpp lu xew bu ko neexoon booba kon mu dëpp waaye li suñu Musaa ko wax rek konoon du am mayoo du am mayam yii mu am boole ko jëloo jëloo rek borom Touba waaw nga xam ne kon ba mu dajeeg ñoom ca jay sasin bu ko neexoon dëpp waaye nag konoon du am may rëy yii mu am boole ko jëloo rek borom Touba kon jërëjëf sëñ Touba sëriñ bi ne billahi gëñ naa ci yàlla faaraxtu tàggoog nag tàqalikoog nag nasaaraan nasaraan yi nga xam ne ñoo ma jël si woon tàqalikoog nag ñoom jéewali ci jéewal wa xayri yi ak lu dul nasaraan sama jël si woon tàqalikoo na ak ñoom xatxan tàqaliku ci dog ci lu dog maanaam ci lu dul benn werante bilaa tanaawuli te teqalikoo goog ci lu dul may jël sama ngàndaay di yuutu samay ngandaay di jihaar ak ñoom kon ñoom kon dañoo amoon ngàndaay bëgg jihaar ak sëriñ bi ndax xam ngeen ne ña doon jëloon ña jël ci sëriñ bi te lakk jiite leen xam ngeen ne bokkoon na ca dañoo meroon meru xol bañ koy jël si ndax xam ngeen ne li ko waral mooy sëriñ bi amagutoon digal génnee mbàkke baari dem wuyu ji ndar ñoom nag bu ñu ñëwee ci dañoo defan délégation bu bëri ngir ànd kook mer moo tax gis nga bi ñu ñëwee sax laka leer mi jiite armee ba dafa bëggoon a wax ak sëriñ bi ay kàddu waaye sëriñ bi dafa wëlbati dafa wëlbati jëmmam ji ba noppi jublu ci yàlla jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim toroxlu ci borom laka leer nooy nekk meram wa fay lépp mu fay nga xam ne lañ ko waajuloon yëpp dafa mel ni maanaam dañ ko fàtti ngir lan juróom fukki bismillahi rahmaani rahim yooyu nga xam ne moom la jàng toroxlu euh, toroxlu ci jëmi borom tabaraka wa taala nga xam ne fu jëm rek moom lay kaaraangeem mooy jëmi bismillahi rahmaani rahim te jéewal googee keroog lam fa doon nekkee la ci ëpp mooy euh, turam yi di inna waliyallahu la si nasala kitaab wa yatawalla saalihiina la ci ëpp loolu la doon wax mooy turam yi di yaa wali al waliyu nga xam ne allah waliyu lisina amono yàlla mooy ki méngoog mbiri ñi nga xam ne gëm nañ yàlla saa yoo xam ne dem nañ ba jàq rek buñ ko woowee ci turam bii di yaa wali mu dal di woo loolu moo loolu moo fiir beneen bayit ba aya saminillahu inda ji wali iblisa isnadaytoo bi yaa wali yàlla kat naaguloona iblis ci man fa jiiwal waaw naagaloona iblis ci man ci fa foofu la ko naagaloo ci man mooy mënatul ci man dara amatul benn kattan ci man ngir lan lu ma ko woo ci turam bii di yaa wali fii mu ne la billahi gëj naa ci yàlla nag tàggalikoog na nasaraan kon lu xew tàggalikoog naa ak iblis te mu ngi ànd ak ñoom tàqalikoo goo xam ne gu dog la nag ci ma yur xam ngeen ne ca bisub gaaw boobu foofee ci jéewal fala yendu fala fanaan ba fajar gi fala déqee jëm kokki commencé nos asmaa wax ne badrin ba kerek muy ba muy dem Louga dem Ndar ci ëltina foofee ci gannaaw boobu julee tàkkusaan dem Ndar tubaarikala julee fi timis kon mu ne gëñ naa ci yàlla ne tàqalikoog naa nasaraan si nasaraan si ma jël si woon ci jéewal tàqalikoog naa ak ñoom ak lu dul nasaraan si sax te mooy saytaane tàqalikoo goo xam ne amul werante te jëluma samay ngàndaay dem di jihaar ak ñoom taxul ma tàqalikoo ak ñoom kon moom li mu yaakaaroon mooy jaas itam mooy làmbañam di tudd yàlla fu mu toll xam ngeen ne keroog bi mu génnee Mbàkke Bari rek ñoom Cheikh Ibrahima Fati bokkoon nag ci ña daan taxawu sëñ bi mooy di jàng ay salaatu ala nabi di ñaan sëñ bi ngir mu dellu si waat ngir am ñeewantu pour mu dellu si waat waaye nag di jàng ay bisimillahi rahmaani rahim di ko léema ngir bëgg noonu buñ ko mën a lara mu ne ba mu yeggee jéewal rek ci la tàggoog ñoom kon nag fu ñu war a déq jëm ila ndar mu ne ila nabi wajaxtu xatlu fi ndari maa xat kafaaniyal xedaakal këdëri mu ne tu jëmale naa xablu ci lu jiitu may dugub bi ndar ila nabi ci yonente bi alayhi salaatu fi ndar ci biir ndar jëbale naa fa lan mu ne ma ay tagg yoo xam ne xat kafaan ya fegal na ma alexedaa noon ya kël këdëri ñi ki lépp luy xeeti nëx nëx nee na laataa may dugub bi ndar parapare naa fa di fa bind ay xasida di fa tagg rasulullah la salaatu ay tagg yoo xam ne tagg yooyee ci la ma yàlla fegalee lépp luy noon ak xeeti nëx nëx yàlla fegal na ma noon yi ma jël si woon fegal ma seytaane waaye ak ñay dox ci diggante bi dara mbaaj xeeti ndax ndax yëpp yi am nga xam ne léeg-léeg wala xeeti ay tuumaal ak yu nu mel yëpp di ko teg sama kaw nee yàlla fegal na ma ko lu ko waral mooy laataa ma yegg laataa ma yegg ndar ñoom ñëpp laa leen bologe ci ay tagg yonent bi alayhi salaam xoolal ñoo xam ne ñoom ñëpp ay ngandaay lañ yor yoo nga yor sa xalima gii di tagg rasulullah alayhi man leen ñoom ñëpp te jëloo benn nganday di jaar ak ñoom lu dul nag ak taqwa ànd ak taqwa rek taqwa rek ndax saa yoo xam ne rag nga suñu borom lépp lu yàlla bind rek noonu la lay ragale ku ragal yàlla rek maanaam lépp lu yàlla bind rek lu dul noonu la lay ragalee moo tax mu ne jëmale naa ca kañu solooka ci li jiitu may yegg bi ndar jëmale naa ci moom ay tagg yoo xam ne moo ma fegal noonu ak lépp luy xiiti nax na xam ngeen ne ndar googu foofu la gën a yàgg ndax am na fi trente suuf trente huit suuf foofu la gën a yàgg lu ko waral mooy foofu dafa yàgg dafa yàgg ak yéen ko fa teg ak nattu ya nga xam ne dañ koy isaara rek waaye buñ ci duggee dañuy bañ di jël waxtu wi te waxoon nañ leen ne daanaka sëñ bi day nettali ci xasida gi rek yi nga xam ne sunu borom da koo defal ngir mu ci cant wa ama bi nihmati rabbika fa hadis léegi nag bu ñu yegg ci xasida ay saminillahu danañ nettali li xewoon ndar ak yu nu mel ak la lañ ko fa boole yépp incha allah waaye daal ndar am na fa 38 jours foofu la gën a yàggee. ndax booy xool fukki fan yu mujj ci weeru safar ak weeru gàmm yëpp ba ci mujjanteel bi daanaka yëpp foofu la ko la ko am foofu ci ndar mbokk yi kon sëñ Tuubaa nee ne jëmale na ca ndar laataa mu fay yegg ay tagg yoo xam ne moo ko fegal noonu yëpp ni ki lépp luy xëti nax nax ndax foofu lu tax mu ne xëti nax nax mooy foofu lañ ko doon waajalee nag mooy daj dëpp gi waaw foofu lañ ko doon waajalee foofu lañ ko doon waajalee ngir bëgg ko foo atte ngir lan foofu rek lañ bëggoon mu yem xam nga tey jéewal bu fekkoon ne sëñ Tuubaa noon ya mën nañ ko fa konoon l'islam day fay ndax jéewal ak badar ñoo yem jéewal ak badar ñoo léegi nag ñi ngi war a diqi ndar ñi ngi war a diqi ndar jëm illa ndakaaru sëriñ Tuubaa ne lil muntaxaa wajjaxtu fi ndakaaru sikran bii kat kub kibal kat kub kibal makaaru nee na wajjaxtu jëmale naa lil muntaxaa ca kañu segg ka ca kañu segg ka mooy ku set ko wicc nga xam ne benn daas taxut ko fii ndakaaru ci biit ndakaaru sikran ak tudd yàlla goo xam ne jëmale naa ci moom ay moom rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci moom ay tagg waaye sikran ak tudd goo xam ne bii ci tudd googee xat kubti ba ci la ma jéngale moom yàlla almakaaru ki nga xam ne mooy pexewaakoon bi te mooy iblis nee na laataa ñuy dem ndakaaru nag nga xam ne ndakaaru alxames googee bisub alxames la fa dem nee bi mu demee bi mu demee bisub alxames bi muy yegg ndakaaru boobu daanaka jant bi sono boobu dafa yendoon ak koor waaye du toon weeru koor nee bi mu demee nag ba wàcc benn kër ne ah taxool nag ma wut lu ma dogee wut lu ma jullee waaj tabarika la waaj daal julli daal comme nit ku woor ba ngoon nooy dogee nooy jullee nooy defee farata yi nooy defee lépp ak naafel yi nee na daal ma waaj ko bi ma wàccee rek am ndaw rek ñu woom ma foog na lu ne la may defee ndeke dañ ko waajal nii boo xam ne ay pusaki ak raj ak rabbu ak tàngoor ak xesaw ak xet foo ko na toro wees na ko dañoo dem rek jalañ ko ci nga xam ne doo dugaale kaan doo dugaale kaamin doo dugaale dàll doo dugaale euh, kaala moom daal noonu rek lañ ko yóbbee rek ba ma ko ci nii nga xam ne lu daw a daw yaram la na ma xam ne yàlla rek moo mat a teellu kenn ku nekk keroog ñëw na ngir di ñaan ne comme na nga xamee ne Ibrahima dañ ko sànni woon ci safara Jibril ñëw Israfila Mikaila Asraila ñu ñëpp ñooñu ñëpp ñëwoon nañ ci man ngeen di sàkku nag maanaam ne dañ may xettali man ma dellu rek wax la Ibrahima waxoon waaye ma ànd ko sant muñ dellu ci yàlla nee na ke rek nekk naa fa di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di tudd sama borom tabaraka wa taala ci la ma yàlla jéngale seytaane waaye nag fanaan naa foofu di dundal ñaari saari alquran yi te mooy saaru Ali Imran ak ñoom laa fanaanoo di ko dundal waaye nag ak di julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam loolu rek ci la ñu pexe woon yëpp ba foog ne danaa ci biir nëbbam sunu borom al sunu ko nga xam ne ndakaaru lu fa xew la moo tax foofu rek ci histoire ngay nettali sëñ Tuubaa ne isa sakabtu salikal wa salikal amir wa subota taarat ilal jihaadi fil armayi nafsi walakin sabba ma fàttalikoo gudd goo ko ñu dugaloon ma fa fee ci nii boobu ak boo boo fa di ko dugaloon ak sax gam fa soxoon ak métti ya ak jamit ya du ma xelaat lu dul lu dul jël sama ngàndaay rek dem jihaar ak ñoom fa dugaloon waaye yonent bi alayhi salaatu salaam moo may aaye kon nga xam ne foofu rek ngay nettale ci histoire Sëñ Tuubaa wax loolu moo tax nee ni gis nga ki nga xam ne da ko noonoo woon ci jéeri ji foofu la dee Ndakaaru waaye nag kenn naka moom ci géej gi la Conakry Karambasa Karambasa la dee te danañ fa yegg moo tax mu ne jëmale naa ca ko ñu tànn ka ca biir Ndakaaru tudd goo xam ne ci tudd googee ci la ma yàlla jéngale si jéngale ki nga xam ne mooy kon nga xam ne kon ko dugaloon foofu la fu ëppoon lam fa doon def mooy tudd suñu borom inna laa wa inna a raaji'uun ak di julli ci yonent bi ak di jàng suuratul ah, Aali Imraan ak suuratul Baqara ba yàlla jéngal ko seytaane fee lu mu wax nafaa li xayrillaahu qablu fi dari li ahli badrin usoodi kadari kon ñu war a jéqi jëm fan léegi nag mu war a bayekoo ndakaaru ndax wax nañ ne ajjuma joojee ci la borom bay ko Ndakaaru nag waaye jëmmi samedi nga xam ne Sëñ Tuubaa samedi da koo jig samedi ci la bay ko euh, Ndakaaru war a déqee nag jëm ilaa Konakiri war a jëm ilaa Konakiri léegi gaal googu nag ci biir gaal gi ci lay waxee lii gars yi dañoo jàppoon dañ koy sànq euh, tabaraka la taale bi ñëw di ko seet ci ñii da jooy ñii da yooxu foofu la tàggoog ñoom nag nga xam ne diggante boobu ci la julli géej gi am léegi nag diggante boobu lay wax ne diggante yi ak Ndakaaru lay wax ne lil mujtaba wa jaxtu fi safina xatlu sanan yaxludu fi madina jëmale naa ca kañu tànn ka ba ma nekkee ci biir gaal ga ba ma nekkee ci biir gaal ga wa jaxtu jëmale naa lil mujtaba ca kañu tànn ka fii safina ba ma nekkee ci biir gaal ga ba ma béy Ndakaaru ba nekk ci biir gal ga jëmale naa ci moom xatlu ci lu jiitu nan ay tagg yoo xam ne yaxlu dañuy sax dàkk fi madina ci biir madinatul munawwara tagg yoo xam ne dañuy sax dàkk ci biir madinatul munawwara ci biir madinatul munawwara ndax nit ñi ilay xidmatun xat laa samat rawdatuhu ilal xiyaami asiam nga xam ne kon Sëñ mooy koo xam ne kenn xamul ko nee na nag bi mu génnee Ndakaaru dafa am waa joo xam ne ab wolof la saalum saalum la itam xam naa dafa déggoon ñu ne sëriñ bi day dem Gabon ngir mu ñëw di ko xaar foofu bi mu ñëwee jox sëriñ bi hëddee ji duuf na ko man de damaa déggoon ne yaa ngi ci biir gaal gi yéenu boori gabon loolu laa déggoon nag ngir ma ñëw nag fas yéene siyaare la waaye maa ngi sàkk yow nga ñaanal ma sa borom waaye itam nga dénk ma sëriñ bi na ko sëriñ bi nee na man waa jooju ci laa déggile maanaam gabon lañ ma jëmee ci waajooju laa déggee turu gabang ne maanaam man gabang lañ ma jëmiñ sëriñ bi dal di ko dénk noo ko faxlam yaa aqi haysu kunta bi annahu laa ilaha illa allah mbokk xamal ne foo mën a nekk na nga xam yàlla rek te na ngay jaamu yàlla képp noo ko fa man tawajjaha ila xayrillah ku jublu jëm ci ku dul yàlla dana xam ne yàlla rek yàlla bis dana ñëw dana xam ne yàlla rek a yàlla waaye wa man tawajjaha ila xayrillahi bi xayri muhammadin rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam képp ku jublu ku yàlla ak ci ku dut yónent bi sallallahu alayhi wa sallam na dana xam ne yónent bi ndaw la lu yàlla yónni waaye yàlla rek yàlla xoolal pas-pas boobu ak nu mu ko firilee max naa turu suñu borom ak pas-pas lu mu yokku waaji muy saalum saalum bopp nga xam ne da ko ñëwoon di siyaare sëñ bi jox ko sa diya xoolal dénkaane gu am solo ki ko dénk nag ba ko defee mu ñaanal ko ndax dafa sàkkoon ci moom ñaar mu ñaanalal ko yàlla maanaam sëriñ bi ñaanal saalum saalom bi yàlla suñu borom tabaaraka wa taala waaye nag mu dénk ko loo xam ne dana dana nekk di ko def comme moom ci tukki bi la jëm sëñ bi dénk ko ñaan bu ab eh, kii dénk ko dénkaane bu am solo gi léegi nag dénkaane gu am solo googu moom lay sëñ Tuubaa yi wax ne gannaaw bi waxee ne wa jox ko jëmale naa lil mujtabaa ca ka ñu tànn ka fii safina ci biir gaal ga xablu ci lu jiitu zannan ay tagg yoo xam ne yaxlu dañuy sax dàkk fil madina ci biir madinatu mun war nga xam ne lépp ay jóor la ci roon raw du rasulullah alayhi salaatu salaam di ko siyaare moo tax ma ne axlaxtu sell na xitmati samam liggéey la daa konaakiri fa konaakiri lil Moustapha ñeel ka ñu tànn ka almaax yi ki nga xam ne mooy aj faat ci wér gi bilaa manaakiri ci lu genn xeetu wéddante ci lu genn xeeti aji wéddante manaakiri bi bokkut bara anillahu la daa kunaakiri min kulli jaal bi ilal manaakiri manaakiri bopp mooy jamxu munkar boobu mooy lu ñu si fii nag yéebéer ñu lay wax rek ci lu genn xeeti aji wéddante moo tax boo demee ci irwaahu nadim dalay wax ne maanaam bayit bi max naa am mooy saalum saalum bi nga xam ne dafa ñëwoon di siyaare ci sëriñ bi jox ko hadiya waaye nag sàkku ci sëriñ bi mu dénk ko loo xam ne dana man di ko taxoo lu mu amee solo noonu moom la sëriñ bi jàppee hadiya ji waaye doonut hadiya ji mu ko jox déedéet doonut hadiya ji nga xam ne kado hadiya ji mu ko jox nee ne doonut max naa bayit bi waaye max naa bayit bi mooy dégg gi mu ko dégguloo maanaam baatu bi laa ilaha illallah loolu mooy max naa bay bi moo tax mu ne tax si yi ma xoo li rajuli max naa laa ilaha illallah wa huwa la ci bi ne moom la ko jox ndax sëñ yokk na ko pas-pas xamal na ko tawhid xamal na ko na ku jaamu ku dul yàlla da nga torox fii ci kaw adduna da nga torox ëllëg yemal xiyam te nee bu fekkoon ne waa ji sëriñ bi xamalul ko loon ko doon mën naa sànku mën naa sànku waaye yokk gi mu ko yokk ci xeetu yonent bi loolu nga xam ne loolu yonent bi da cee kontaan nee na loolu la jàppee hëdee ji loolu la jàppee dénkaane googu mu dénkaane salum salum ba moom la jàppee ne axlastu sell na xidmati samam liggéey la daa konaakiri fa konaakiri lil Moustapha ñeel ka ñu tànn ka léegi waajooji mu yokk euh, xam-xam yokk jom yokk pas-pas ci max naa laa ilaha la lay wax ne lil Moustapha ñeel ko ñu tànn ka almaa yi ki nga xam ne mooy aji far ki bi laa manaakiri ci loolu génn xeet aji haraba mini xablu fii karam basaa mubaarisi wali siwaaya hubbi saa léegi nag kon sëriñ bi xam ngeen ne diggante karam basaa ak ndakaaru daanaka di am na fa lu mat fukki fan ak lu teg karam gi le 3 octobre la fa Sëriñ Tuubaa ñëw ndax moom sax xaw na fa yàgg tuuti tax woon na fa am na fa ñaar fukki fan moom karam gi waaye nee na bi ma war a déqee ci biir gaal gi dem karam basaar nee na dafa am waaj yoo xam ne nit ku ñuul la dafa nekkoon ci biir gaal gi bàyyi ko Conakry xëy na gisul moon nit ñi dañuy wàcc di wàcc rek ba mu jege ma ni nga bim ma jegee ba noppi gis ma ne ma waaw kii du diw jaar sama tur ma nit ma xool ko mu ni ma yow de samay mbokk ñoo la jàpp yow de tey da nga wéet bàyyi nga say njaboot bàyyi nga say taalibe yow dégg naa yaay wax say taalibe yaa ne yaa man lii yaay def lii yaay borom lii jàpp Sëñ Tuubaa di ko yëj rek di wax ci moom baat bu xam ci Sëñ Tuubaa rek maanaam jàpp na ne Sëñ Tuubaa moom dañ koy alagi rek ndax kuñ moso yóbbu ci géej gi rek kooku moom dellu si woo kon moom jàpp na dañ koy alagi moo tax muy yëj ji Sëñ Tuubaa ci biir gaal gi nee wax jooju muy wax nag ci la gaal gi commencé di yuuxu di yuuxu di yuuxu ndax yàlla bëggut sama nopp yi di dégg kàddoom yu ñaaw yooyu nee na yooxu gaal gi nag moo dox suñu diggante ba nga xam ne déggatuma lu muy wax bañ yegg karam basaa waaju ji dal di wàcc nga xam ne geneen xasida gi dalay wax ne asabanillahu fii karam basaa foofu yàlla dàq na lay wax yàlla demee na fii karam basaa lu mu baarisu wax ni xal fii nag moom daf ne xaraba daw na bi nii ci man xablu ci lu jiitu may dugg fii karambasa ci biir karambasa mu baare ci ki nga xam ne moo doon liwatoo ak man te woo hubbi saa tëjees na ko lii siwaaye mu jëm ci kudut man ku doon liwatoo ak sëñ bi sëñ bi duggee ci gaal gi bàyyi koo Konaakiri mu dugg dend ak sëñ bi xàmmi sëñ bi jaar ci jëpp jaar ci jëmmi turam bi commencé koo yëjji naan ko kanaa kii du diw de du Ahmadu Bamba yow de tey fu ñu la jëmee xamoo ko ñi la jàpp ni samay mbokk la fu ñu la jëmee mooy alak la rek nga xam ne da koy lu mu xam ci lu bon rek ci xeeti ñaaw-ñaaw rek wax wax na ko waaye nag machine bi moo dox seen diggante machine bi di yooxu rek di yooxu rek di yooxu rek di yooxu rek sëñ Tuubaa neen machine bi dafa yooxu ba nga xam ne yegg nañ Karambasa ndax moom foofu la waroon a wàccee ñu waroon a wàcc biir Karambasa nee na moom ci ñu la bokk ba gaar gi teeree rek ci la wàcc nga xam ne la ma bëggoon a wax yëpp man euh, sama nopp déggul ko ndax yàlla lépp lu ma naxati naxati na ko te lépp du ma naqadi naqadi yàlla naqadi na yàlla moo tax yàlla bëggut kàddoom gu ñaaw googu sama noppi di ko dégg ndax kàddu ko xam ne amul tax moom lay wax ne nag ki doon ak man mooy ku wax kàddu yu ñaaw yooyu sunu dafa tëjee gémmiñ gi mooy jël machine sant ko mu yuuxu ca kaw nga xam ne machine bi léegi dafa yuuxu rek di salleer di yuuxu ba yegg karambasa waa jooju di wàcc suñ tubaab mucc mooy mëx naa xaraba mi nii xablu fii karambasa mu baari si wali si fu bisa xaraba daw na mi nii ci man xablu ci li jiitu may dugg fii karambasa si biir karambasa mu baari si ki nga xam ne moo doon liwatoo ak man te waxu bisa tëjës na ko sax li si waaye mu ñë mu jëm ci kudut man léegi nag kàddoom gu ñaaw gëm jëmewut ci man léegi nag yàlla sunu borom moo sant machine bi muy salleer di salleer di riit di yuuxu ca kaw ba mu yegg karambasa wàcc loolu mooy max naa loolu léegi moo war a déqee moom jëmi sëñ bi war a jëm nag mu ne malakanil maliku xenda daawumi maa xat kafaani xeda tasaawumi mu ne malakani moom loona ma almaliku yàlla mi nga xam ne mooy buur xenda daawumi fa dawme maa loo xam ne xat kafaani ya fegal na ma xeddaa tasaawumi nooni waxaale ga loolu itam lu mat leeral sëñ Tuubaa bi lii baye ko Karambasa war a jëm daw me war a jëm daw me na bi war a jëm daw me damaa amoon benn pot boo xam ne gëttu miska la moom laa daan yore di ko wis ci sama yiri yi ndax sëñ sëñ Tuubaa dafa bëggoon gëttu miska waaye di ko wis ci samay téere yi nga xam ne moom laay bindee nee am lu wax ak man na ma sànni ko. ñi ëpp dañ ne noonu ñoo ne ko sànni ko am ñu ne maanaam ak kaddo dafa toog toog dégg lu mel ni ilham ab xaaju bu ne ko sànni ko mu jaayante rek sànni ko ci biir géej gi ci biir ndox mi nee na bi ñu ko sànnee ci biir géej gi biñ demee ba gaal ga teer ca ndaw me nekk am na mbooloo mu dégg ne moom jëmi sëriñ bi mu ngi ñëw mu ngi ñëw mu ngi ñëw ndaw me ci lañ ñëw nag mbooloo mu bari lu ëpp téeméeri nit ku ñëw rek boo koy siyaare si da nga indaale potu gëttu miska ñëpp daanaka siyaare nañ ko wala Cheikh Mamadou Lamine Diop daga nee na lu ëpp ci ñoom siyaare nañ ko mu ne yàlla moo gaaw ak paywaay man benn potu gëttu laa amee woon ko wis ci samay téere ak sama euh, malaan ñu sànni ma ko ci biir géej gi ma ñëw fii ci daw me am mbooloom jullit ñëw ñoo xam ne dañoo ñëw di ma siyaare si képp ku ñëw di ma siyaare si rek indaale potu gëttu miska ngir siyaare ma ko nee na kon lañ ma sànni la woon ca biir géej ga moom la ma yàlla fayee ca ndaw mi loolu mooy euh, la ko yàlla fayee ca ndaw mi mooy daxaaniya rahimu henda daawu mi lahoo bi ma ax naa ani tasaaw yi ani tasaaw mi max naa rahimu al munhemu bi daqaiqil nihami wa haatihi min daqaiqaa noonu la ko Cheikh Mamadou Lamine a àddagaani yu firee nee na max naa rahimu mooy rahimu maanaam sunu borom moo ko ca ndaw me jox ko fa loo xam ne doyluloo na doyluloo ko ci moom sëkk maanaam wëlis wëlis noon yi mhm. loolu mooy malaka ni moom loo nu ma almaliku yàlla miy buur xenda daaw mi fa ndaw me la ko yàlla moom loo mooy bi mu génnee karam basaa yor ab potu gëtu miska bëgg ko sotti ci ay malaanam ak i ay mbindam ak i ay téeram ñu sànniloo ko ko ci biir géej gi bi mu yeggee daw mi nag am mbooloom ci jullit ñi ñi nga xam ne foofu lañ nekk bañ dégg ni sëñ bi ngay ñëw ñi teeru ko foofee kenn ku nekk kerek siyaare nga ko potu gëttu miska mu xam ne fayuk suñu borom moo gaaw suñu borom moo ko moom loolu moom benn rek lañ ko sànni loon suñu borom jox ko loolu yëpp moo tax mu ne yàlla mii buur moom loolu moom fa daw loo xam ne xat kafaaliya moo ma fegal xedaa tasaawu mi noonu waxaale ga nee na waxaale wu sax biñ teere daw me rek kenn ku nekk man jandal jand janduma sax potu gëttu miska dañuy ñëw rek dima ko siyaare nga xam ne amul waxaale sax dañuy ñor a dima ko siyaare mën a payaru suñu borom moo gaawaay léegi nag kon ñu war a déq fi nga xam ne mooy daw me jëm limbar wali mu ne nafaani naafiu fii limbar bi ma bii yax bitu nuy kull mu ne nafaani jëriñ na ma anaafiu yàlla muy aji jëriñi ji nga xam ne yàlla képp ku muy jëriñ mu ngi lay jëriñi ci turam bii di anaafiu nee na ma ne leen yàlla mi tudd anaafion ma ne leen jëriñ na ma fii li mbarwari ci biit li mbarwari bi ma loo xam ne yax bitu nii dana ma ci ñee bi ci moom kulli wali képp kuy wëlu yi nee yàlla lim ma jox ci li mbarwari nee na képp kuy wëlu yi rek dana ma ci ñee feelum wax yësëralil mu naa la daal li mbarwari man xaadalii yàlla may na ma fa loo xam ne ump na bépp wëlu yu ump na bépp wëlu yu Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nag moom day firee max naa maanaam li nga xam ne suñu borom moo ko jox foofee te mu ump bépp waliyu moom doo da koy firee ne qaala radiallahu anhu maa qaaba xan kulli nee na huwa suhuuru ahlu badrin maha raisihim sallallahu alayhi wa sallam fii tilkil fii tilkal biqaaxil muslimati lahu fi lbahari li sajri ahdaa'i al mufassaru bi qawlihi nee na max naa suñu borom jox na ma fi loo xam ne ump na bépp waliyu waaye jox nañ si loo xam ne kuy waliyu da nga ma ca ñee ak koo mën a doon ku am benn cër cër rek ci yàlla suñu borom lan ma jox ci li mbër wali kooku moom da ma fa ñee nee na mooy lan nee na mooy feeñu ku ko waa ahlu badar feeñu te booba noonu ñi ngi ko dugal ci pàkk bu lëndëm waa ahlu badar feeñu ko ak yonente bi alayhi salaatu salaam ànd ak ñoom doon seen njiit ci pàkk yu lëndëm yooyu nga xam ne euh, foofu lañ ko dugaloon ci biir géej ga waaye nag feeñu guñ ko feeñ dañ ko feeñu ngir jàjji noon yi nga xam ne buñ mënal sëñ bi dara waaye nag lañ bëggoon a sëñ bi yëpp duñ ko mën a teg nee na loolu mooy max naa maa xaaba an kulli wali nee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo ko feeñu ba noppi ànd koog waa ahlu badar ñi demoon badar waaw ak seen armée ba noon yi dañ leen gis rek maanaam ragal tiit nangootuñee nangootuñee maanaam lañ pexewoon jëmee ci sëñ bi nangootuñ ko def ndax luñ gis mooy waa ba dar ak seen njiit yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loolu moo tax booba ñi ngi ko dugaloon ci pàkk bu lëndëm bëgg koo waajal ngir lan ngir def ko teg ko fa xeeti coono bu ne ñu bëgg ko fa teg wax ko fa xeeti wax wu ne ñu bëgg ko wax waaye dañoo jékki-jékki rek gis waa ahlu badar armée ànd ak seen njiit yonent bi salaam feeñu ko fa nee foofu lay wax nag yàlla jox na fa loo xam ne na bépp waliyu moo tax mu ne nafa ni jëriñ na ma anafixo yàlla mi nga xam ne mooy aji jëriñu ji fii li mbar wali ci ci li mbar wali bi loo xam ne yax bi du dana ma ci ñee bii ci moom kullu wali képp koy wali rek dana ma ci ñee ñi war a deqi fan jëm baafali bàyyeekoo nañ li mbar wali léegi baafali lañ jëm mu ne ila nabii wa jaxtu xenda baafali qablu bima bihi anaara maxfali mu ne wa jaxtu jëmale naa ila nabii jëmee ca kañu soloo ko xenda baafali fa baafali qablu ci lu jiitu ma ay tagg yoo xam ne tagg rasulullah alayhi salaatu salaam bii ci tagg yooyee anaara moo leeral maxfali samay ëtt yëpp mboolem fu mu mos a jaar rek ak fu ma am dëkk rek nee na tagg yi may tagg foofu ci baafali nee na moo leeral sama fépp tagg yi may tagg yonent bi alayhi salaatu salaam rek nee na moo leeral sama barab yooyu yëpp ca baafali wa jaxtu jëbale naa ila nabi ca kañu soloo ko xenda baafali fa baafali xablu ci lu jiitu ma yegg baafali nag bi ma ay tagg yoo xam ne bii ca tagg yooyu anaaram moo leeralee maxfali samay ëtt yëpp mbooleem samay ëtt rek yàlla moo ko leeral waaye mbooleem samay liggéey bi samay mbir yëpp yàlla moo ko saxalee foofu